kenn ku rëy ci turam ak santam Serigne Modou Mbacke Baara Doli so gisee ñu and ak mom dañoo bokk ku ñu bëgg muy Macky Sall tàccu leen loolu. Macky Sall ba ma koy bëgg booba ma nga premier ministre nekkagul sax président de la république taccu len lolu kon nak Serigne bi dama bëgg nga xam ne li ñu boole du asaar nak dañoo bokk ku ñu bëgg. ndax duñu ànd ak ku jëmul fenn xamuñu duñu wax ak ku jëmul fenn Serigne Modou Mbacke Bara Dolly dafa ànd ak Macky moo tax ñu ànd ak Macky ndax dañoo bëgg Macky Sall Serigne Modou Mbacke Bara nag lu ñu lay ñaan ñun jigéeni xayra dañoo bëgg a liggéey liggéey la ñu bëgg dañoo bëgg nga waxal ñu Macky Sall na ko ñun dañoo bëgg a liggéey bëgguñu ku ñuy yóbbu ci kaar di ñu jox 5000. bëgguñu ku ñuy jox ay mbubb xaatum ñuy dem di wote ji ndax loolu def nañ ko ba sonn kon nag dañoo bëgg nga waxal ñu Macky Sall ñun dañoo bëgg liggéey. juróom-ñaar dëgëral àq ku jegi ak seen njiit juróom-ñett may doomi senegaal yi nekk bitim réew ñu tànn ay ndaw yu leen toogal assemblée nationale ci seen biir juróom-ñeent yokk dooley pencum ndawi réew mi. yokk doole pencum ndawi réew mi ci ni muy saytoo doxalinu waa nguur gi ak i banqaasam fukk jébbal conseil constitutionnel bépp yoon bu ndawi réew mi wote ngir mu saytu ko ndax dëppoo na ak sart réew mi bala koo njiitu réew mee wéyal kon xam ngeen ne loolu am na solo fukk ak benn jëlee limu membre conseil constitutionnel ci juróom yóbbu ko ba juróom ñaar fukk ak ñaar njiitu pencum réew ndawi réew mi mooy tànn ñaar ci juróom-ñaar yi toogal conseil constitutionnel fukk ak ñett yaatal sañ-sañi conseil constitutionnel ba mu mën a àtte luñ naa dëppowul ak sàtt réew mi ci kanamu cour d'appel fukk ak ñeent doxal ci parti réew mi ne gox yi ak gox goxaat yi ñooy doxal seeni mbir jaare ko ci seeni ndaw yi ñu tànnal seen bopp muy jaraaf yi ak ndaw nguur gi te mooy gouverneur yi ak préfet yi fukk ak juróom li aju ci ni ñuy fale njiitu réew mi ak diirab àpp bi ak limu àpp yi toftalu ci moom yi mu sañ ñu aar ko ba kenn dootu ko mën a soppi. muy benn ba fukk ak juróom loolu nag gëstu ko yomb na képp ku jàng wala nga am doom ju jàng wala mag ju jàng wala jërbaat ju jàng wala ku jàng soo demee ci internet am na fu ñuy wax kàggu askan wi kàddu kàggu àdduna muy Google soo tapé décret 306 du 16 février 2016 dana na indil fukki point ak juróom. nga xam ne amul lenn li nga xam ne yàq xel moom lañ ciy wax naan borom ñaari tureeg ku am fukki at ak ku amul fukki at juróom-ñett duñ la mayee sëy jigéen am na droit yàq biiram te bu ko neex dara du ko ci fekk sëñ Modou Mbacké Bara Dolly doomi soxna la ab jullit la moo ngi àndal xam ne dañu ànd ci lool te Macky Sall ñëw na fii bëkki démb leer la ko sëñ Cheikh Mati lay mu leer jaar sëñ Sidi Abdoulaye ak njabar sëñ Touba gépp sëñ Modou Bara Dolly nag moo ñëw fii ànd ak yéen ànd ak délégation bu am solo sëñ Modou Mbacké Bara Dolly moo ko jiite ànd ak sëñ Moustapha Sylla sëñ Moustapha Kamal Mbakke sëñ Abdou sàmb sëñ Xaadim Mbakke soxna Sofi Sarr soxna May Mbakke sëñ Modou Diom ak ñi mu àndal ñëpp. ñi ngi ñaan bala ñuy tàmbali wax ji ngeen ñaanal sëriñ Sidi Maxtaar mu yàgg fi lool ci wér di wax ne dana am kontante bu wér di jàkkaarloog yéen ñi nga xam ne kenn ku ci nekk ràññi naa la ci sa xar kanam. mu doon lo xamni ni luma neex la ndax fu bari dina fa dem ñamay jakar lool man na am duma len xamé waye fi ñi fi tok ñep xamé ya len bu wéré wér ba yaakar na duma fi dige duma fi wax lo xamni ni bu suba da ngeen ma mëna rombu romb ma naan fi waxon nangam wala ma fi nangam kon li ngay wine di wax lama ca man mu doon ay bale bale yi moom danaa ko tàmbali suba danaa ko def bu soob yàlla insha allahu rabbi tàccu leen loolu waay la nga xam ne moo ci tegee muy lu aju ci président Macky sàll loolu yàlla mi dogal dogal na am nan ay jéego yu ndox man ak moom lépp loo xam ne nii ay procès la wala yeneen ak yeneen yu war a def du ma ci waxagun dara ndax li ci kanam rawuti bët waaye lépp loo xam ne mën nan ko bala ma koy jël di ko def feneen taa man ci sama poosu bopp man koo def muy suba bu soob yàlla bale yi dinaa ko teg ci loxo soxna si mu teg ko seen loolu nag su ma leen ko waxee loolaay wan ne leneen lu man di doon ma mën koo jëlee ci moom bala ma koo defee feneen fii laa koy njëkk def bu soob yàlla incha allahu rabbi maa ngi leen di ñaan nag kon lii ñu jëm ci bisu dimanche yi buñ ci eggee ngeen jàppale ñu ba nga xam ne liñ bëgg danañ ko mën a am wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ay jigéen lañ te jigéen ñi bëgg nañ ku leen jàppale ndaxte ñun amuñu lu Touba buñ sañoon ah, jigéen ñi daan jàpp ci loo xamante ne si ne daan ci mën a téye ngir dimbali seen i borom kër benn mooy alxames bu jot dañuy dajee def ay mbootaay di baal dëkk moom set loolu coono jàpp lay jël ku ngeen àndal ku ngeen àndal ñun sëñ bi ah, ñu xam ne ñu xam ne ah, ñu xam ñu déglu ñu déglu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Modou Mbacke noo ngi lay nuyu lu bari lool di la ndax nga nga ñëwee fii ñëw ci kër waa kër sëñ Daaru Assène ndax nun waa kër sëñ Daaru Assène Ndiaye moom lan yaakaar addina ak alaxira nu ñëw nag ak léegi nun noo fi yëmu saar. ndax yaa loota njaay mi fi nekkoon di waakam seen daaru asen nu ñëw nag ci loo yëmu saar di la jàppale nu fas leen la jàppale ak waa koñ bi soxna yëmu saar man sëñ Modou Mbacke Bara Dolly maa ngi lay di nuyu di wax ne ñun gis na ne fii ci Touba nan bàyyi xel ne lépp lu fi mën a nekk ak lépp moom la Serigne Touba sancee dëkk bii di Touba kon bala ñuy tàmbalee suñuy waxtaan ak ñoom mooy ñu ngi wax ne ñu ngi ñaanal Serigne Sidi Maxtaar mu yàgg fi lool ci wér di wax ne ñun gamuñu kudul sëriñ Touba amuñu kudul sëriñ Touba lenn mënuñoo jaaxal lenn ci kaw suuf amul lu ñu jaaxal moo tax li may bëgg waxtu wu ne bu lu mel mel nii amee ñu dellu siwaatal nit ñi xam ne kenn képp lan am kenn képp lan yaakaar muy Serigne Touba Serigne Touba moom mi ñu yaakaar nag tax na du ñun gisuñu leen lu ñuy tax a yokkat wala ñuy daw wala ñu leneen leen am kon yéen mbooloo mi maa ngi leen di wax ne liin bëgg ci yéen mooy ànn na noog président Macky sàll pour fas yéene leen a jàppale ànd na noog président Macky Sall ca leen rek ñu ñor kon yéen li ma leen di wax mooy bu leen kenn fëkk bu leen kenn yóbbaale te xam ne na ngeen fàttaliku ne dëkk bii di Touba ab yara ko yar moo koy moo ko sos dëkk bii di ak jaamu yàlla ko sos dëkk bii di Touba ak taalibe ko sos leneen lu fi nit dëggaande indi ko fi ñun danañ jël suñu engagement génnee loolu bu mu dem ci bit parce que li am solo mooy li am solo mooy mënuñoo génn dëkk bii di Touba ay borom ci borom Touba lan bokk bépp jukkoo bu fi nit indi bu dul noonu ñun ñi dana takk suñ ndigg takk su ndigg bu laxasaayu fas yéene koo génne ci dëkk bi ndax na ngeen bàyyi xel ne maam yi ñu bari noo jege jëkk fekk sëñ Tuubaa ci dëkk bi ñoom ñëpp dañoo ñëw ànd ci li nga xam ne moom la sëñ Tuubaa bëgg ci dëkk bi muy ab yar ak tegin kon duñ bàyyi gone yi neen di ko yàq lu dul loolu kon bis ni tey maa ngi leen di wax ni yéen gone yi ñi ànd ci digalu sëriñ bi yéen gone yi yéen ñi nga xam ne ay taalibi ngeen bu leen neen kenn di yàq seenu taalibi lii mooy li ma leen di dëgal leneen li di wax mooy mission bii ñu am pour ànd ak président Macky Sall fas yéen nañ koo def ci dëkk bi ba mu jeex tàkk kenn leneen lu mën di doon ak keneen ku koy indi danañ daje ak moom ci dun tiidu ragal wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala bala maa sant kenn damaa war a sant sama waa koñ bii nga xam ne damaa wootee ñu wuy si ma ndaxte affaire bi ma ko yégee yàggul waaye bi ma leen wootee ñoom ñëpp dañoo jóg bàyyi seen i itte ku ne xam ne ne tey bisu daayira la ñu war a dem daayira ñu bàyyi seen i itte ñëw ngir sama jëmm maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen xam ne nag li tax ñu jóg ngir man dinaa ci jàpp maa ngi ñi ma àndal ba nga xam ne li tax ñu jóg dinañ ko gis ci man gis ko ci yéen. loolu nag mooy li nga xam ne mooy lool li li war a lool mooy fii du yéen dong yéen a fi ñëw ñi fi ñëw bari nañ trop ñi fi daan woote bari nañ te dañoo wax ne woote yi ñu fi daan def yëpp gisuñ ci dara ndaje yi fi daan def gisuñu ci dara ma ne leen xëy na kon dina wuute gina wuute jooju ne dama bëgg yéen ñi ngeen jàppale ma ci yéen a ci mën a jàppale su ngeen ma ci jàppalee dina baax parce que damaa wax loo xam ne nii. yaakaar naa ne dana war a mën ne pour ngeen jàppale leen jàppale bi nag paasewul jigéen ñi moom xam ngeen seen problème lu ñu leen mën a dimbalee mooy affaire financement wala lu leen mën a dimbalee ñu liggéey jàpp ci xale yu góor yi tamit ñu ngi nii luñ leen mën a dimbalee bañ man cee mën a am avancement ngeen jàppale leen ci loolu daan moom laa bëgg ngeen dimbali ñu ci bu baax a baax baax daal ba kàddu yi moom lu bari. jërëjëf taala wa barakaatu Eh, sonu ci sar ñi ngi lay siaré bu baax di la nuyu di nuyu wa koñ bi nga xamné ñom nga nekkal di wax né dégg nañ sa wax li nga xamné wax nañ ko wayé am na loo ne waxtu wu ne moom lañ wara ñëk tambalé muy yeen ñi fi nekk ngeen ñaanal serigne Sidi mu yagg fi lool ci wër bu lolou ñu ngi leen di wax ne ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen toogaay bi di ñu xaar boobu ba léegi si eh, gis nañ ko gis nañ yëg gi nga xam ne am ngeen ko ci ñun kon ñu ngi leen di jaa jaajëfal di wax ne soxna si Sarr ñun dégg nañ say kàddu am na loo xam ne ni ñu lekk moo tax ñuy dox ndax damay wax ne ñun Sëriñ Tubaa dimbale nañu ban bokkee ci moom kon lépp loo xam ne jëg nañ di ko dox lañu ci ñor mooy askan wi li nga wax nag ñun de fas yéene bokk ci ñooñu ndax duñ digaate duñ wax lus mënut ca li ñu ñor mooy lépp lu ñuy wax day fekk loola ñu mu doon loo xam ne lu ñu leer nàññi la danoo ànd ak président Macky sàll di ko fas yéene jàppale ci biir dëkk bi fas yéene ànd ak moom bépp foo xam ne nii war nañ faa def ay liggéey ci dëkk bi buñ ko demee ba xam ko danañ ko ko signalé fa yéene cayit mu jàpp ko ca ba def ko la ca nekk nag la nga xam ne ay mbir la yoo xam ne ci ñun la ajo it lépp loo xam ne nii mën nañ ko suñ ko yëgeet suñ kemtalaay kàttan danan ci sabablu kemtalaay kàttan waaye daal li leen di yëgal mooy lenn rek mooy li fi nekk mooy liggéey liggéey boobu ni ko soxna si waxee mooy nit napp di la jox wan la nappee moo ko gën lin fa séenee def mooy bu ñu ko yàlla mayee ci ànd gin ànd ak moom lépp loo xam ne ni ay procès la wala loo xam ne lu nit di def la di ko liggéey suñ ko manee fexe ba ngeen am ko danañ leen ci jàppale insha allahu rabbi waaye di leen wax ne lii ñu jëm liñ ci bëgg ngeen ànd ak moom jàppale ko ba lim bëgg mu doon loo xam ne du moom moo ko bëggal ngir boppam waaye da koo bëggal ngir Sénégal Sénégal gi nga xam ne amuñu lu dul moom mu bëgg loolu daan lu fi dox ñu fas yéene ba wéy jooju mu mën koo am bu ko amee ñu mën koo gunge ba élection yi di ñëw mu gañe ko ci jàmm loolu mooy sunu yéene wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf. asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yi ñoo leen di nuyu ci kenn ku nekk turam ak santam di ñaanal kilifa gi fi teew. lépp lu muy bëgg suñu borom defal ko ci lu kawe njortam ana waa association ànd defar sa koñ ana waa association ànd defar sa koñ kon ku baax loolu moo nekkoon kon li nga xam ni mooy mbooloo mi fi teew ñun nag suñu bëgg-bëgg mooy lépp loo xam ni dafa soxal maanaam xale yi nga xam dañoo maase fii di liggéey asas bi lépp loo xam ni ci la ñuy yëngu moo xam muy wàllu bale ak bureet yi nga xamni mom lañu sétalé dëkk bi ak bépp moyen bo xamni man nga ñu ko jàppale ak bépp moyen bo xamni man nga ñu ko assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ma ngi sakku ci yeen ñaan ngeen ñaanal sëriñ Sidi Maxtaar mu yàgg fi lool ci wër ndax ab mourid bala muy tambali ki nga xam amuñu luddul mom muy sëriñ touba sëñ Sidi Maxtaar. yéen ñëpp na ngeen ko ñaanal mu yàgg fi loolu ci wér yéen a bokk mbootaay gii pour defar seen koñ ñu ngi leen di nuyu nuyu bu rafet ñu ngi leen di nuyu nuyu bu màgg ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay di wax ne lépp lu ngeen wax ne jëmale ko ci wàllu koñ bi ñun de pare nan engagé nan pour fas yéene jàppale leen ci lu mel noonu. rawatina ngeen bokk ci Touba kon dangeen a bàyyi seen dëkki maam yi bàyyi seen sancaani maam yi dikk ci kër Serigne Touba kon lépp lu baax war na leen fee fekk lépp lu rafet war na leen fee fekk war leen a am benn jàmbat ci kaw suuf kon ñun ñi nga xam ne yàlla baaxe nañu ba nga xam ne lépp loo xam ne nii moom lañ bëgg ak lépp lu ñuy wut ëllëg ñi ngi koy wut ngir fas yéene ñi nga xam ne ay taalibe leen nekk ci dëkk bi ñu fas yéene koo liggéey jox leen ko incha allahu rabbi ndax ñun ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ah ñu sëriñ Touba ci jëmmi boppam defal nañu loo xam ne ba keroog ñuy faatu ci dañuy ci ci teraanga la dund kon suñ bopp taxul ñuy wax li ñu ñor mooy wàllu taalib la lépp loo xam ne ni luy waral taalib yi seenu dëkk dëkkeen gën a rafet loolee mooy li ñu ñor ba tax ñu dugg ci politique. ndax ku ni tuddu tuddu serigne touba war nga xamne serigne touba defal na lu ëpp li kon yeen taalib yi na leen leer ne lepp luñ bëgg ngeen fas ne wi ba nga xamne moy waw waw joju jooju président Macky Sall am li bëgg wa yéen wa marché bi gis nañ ne marché bii muy marché bi fas yéene nañ fee liggéey fas yéene nañ ko moy walu marché bi li président Macky Sall def moy Sénégal émergence buñ ko ci jàppalee yaakaar naa ne marché yu mel nii dana jëkk ci Sénégal kon loolu sun yitte la sun soxla la ñu nag du ndigaate ndax ay taalibe ngeen ñuy doon ay sëriñ ci beneen côté bi ba tax na ëllëg bëgguñu ngeen taseeg ci dëkk bi ci Touba ci dëkk bi ngeen taseeg ñun naan sëriñ bi ñëwoon ne ci koñ bi wax nangam kon nag loolu it lu ñuy sàmm lay doon lépp luñ ci man daal fa seen nan danañ ko dox danañ ko wax ba seenu nekkeen doon nekkeen woo xam ne wu rafet la doon nekkeen woo xam ne wa ngeen ko bëgg la ci barke Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa sawu jono ci yàggaay bi ak xat-xati xat jamono ni demé demee ndax kenn ku ne xam na ak jot moom yóbbu te euh, tàkkusaan ba léegi yéen a ngi fi bàyyi seen ay yitte yëpp ngir jàppale ñu fekk ci ñu ci li nga xam mo moom lañ sumb di ko liggéey de la république diko wax nit ñi nga xamni dañuy wër di dugg ci dëkk yi ak ci kër yi di wax ta dara ñorul leen lu dul seen intérêt bop ñoñ lañ bëgg ngeen wan leen ginaaw bis ni ki tey

jël sa carte nga sànnil ko président de la république muy wii bi nga xam ne taaloon nañ ko léegi fii. ginnaaw bu loolu jàllee nag ñi ngi sant bu baax kilifa yi nga xam ne ñoo teew fii di ko commencé ci Serigne Modou mii nga xam ni ñun moo nekk suñu bopp ci liggéey bi ñuy liggéey ndax euh, bu yàggul daf maa woo ni ma si Serigne Abdou Salam ma ne ko jenn mu ne ma président de la république daf ñoo sas te sas woowu ñun war nañoo fexe ba kenn ku nekk bu waar wi sooxee ci sa côté ma ne ko day mbàkki man fa fas fasuma yéene mu sooxee sama côté. kon nag mayit maa ngi leen di ñaan yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak ñun ngallaawaay nañ fexe ba sas woowu bu mu sooxee suñu côté ñun ñii. lépp loo xam ne président bëgg na ko daal muy gagné Touba massivement ci wii nañ ko ci jàppale euh, derrière la sëñ Modou Mbacke mii toog donc daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ni bu bis baa ñun ñëpp nañu àndandoo wate wii massivement wii ànd ak président de la république ci wii bi wii pour intérêt Sénégal wii pour Sénégal dem ci kanam wii pour président amaat deuxième mandat ndax bu wii bi day gañe président ñëwaat amaat deuxième mandat autoroute Ila Touba àgg euh, hôpital bi muy tabax Touba egg yeneen ak yeneen sànc yi mu sumbi àgg sëriñ si am jàmm président am jàmm léegi nag werante jërëtu ko. li fi nekk mooy président de la république nit ñu baax ñëpp ànd nañoo moom fii ku fi àndut ak président rek jàpp leen du nit ku baax nit ñu baax ñëpp ànd nañu ak président Serigne Sidi Mokhtar fi gën ànd na ak président porte parole la ma ci topp ànd na ak ñii ci des mooy Sëñ Modou ñii ñoo ñooy Serigne su baax si ñoom képp la fii ñu fi tey ñooy Serigne su baax si Touba kon nag ku ngeen dégg muy wax moom bu leen ko faale te xam ni moom daanaka lim teg ci dëkk bi bëriwul kon nag moom ñi am solo daal ci dëkk bi ànd nañu ak yéen nag fexe leen am solo ànd ak Assalamu'alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ñun murid baaxoo nan bala ñuy yëkëti kaddu ñun ñëpp ñu ñaanal señ Sidi makhtar mu yagg fi lool ci wër khalifa di murid di wax ne ñi ngi leen di nuyu tambalé ci nuyu bi sunu mbokk suñu xarit señ Abdou Salam Jenn mom mi nga xam ne tax ñu taj suñu tank fi di nuyu ci turu mboolem kilifi yi ma àndal yëpp di wax ne ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci seen toogaay bu yàgg bi di ju xaar yàlla na leen yàlla fay ci barki Serigne Touba di wax ne li wax ji lu ci bari sëñ Abdou Salaam wax na ko liñ soxla mooy buñ eggee ci dimanche ji ñépp ànd maase wate wéy wéy jooju nag mbir la moo xam ne dañ koy def sëñ Abdou Salaam wax na ko kilifa yi nga xam ñi ngi ci réew mi fii ci biir Sénégal kenn ku ci nekk di ay nit ñu baax ñu màgg kenn ku ci nekk la leen ñor mooy li nga xam ne moom la président Macky Sall la tëral ndax loolu lislaam bañu ko ak taalib bi bañu ko lenn lu aay lenn loo xam ne nii luy lor laa ngi la nekku ci ay nit nag jëg nan jël seen ci plan communication di wax ay wax yoo xam ne nii teguñu ko ci yoon di wax ay wax yoo xam ne nii ñoom ci seen jëmi boppam gëmuñu ko ñooñu ay nit lan yoo xam ne nii ñu tekkiwu dara lan nit nag bu fekkee ne yow ci sa jëmmi boppam la nga bëgg wala la nga yittiwoo du doon lu jariñ sa askan lu la jariñ lay doon say intérêt personnel nit ku mel noonu kenn waru koo déglu ndax nit bu fekkee dafa rëdd wanna na rëdd yim yëpp benn bi ci jiitu muy fexe ba nga xam ne Sénégal gii sunu dund dana sell sunu su moomeel ci ay suuf sunu moomeel ci ay moomeel ak dëkkuwaay ak lu man di doon duñ ko kenn du ci mën a teg loxo loolu yaakaar naa ne njariñu askan wi la li nga xam ne mooy lu jëm ci politique benn président bu mën a toog lu ëpp juróomi at jàpp dix ans di ñaari mandat munu kenn mënatu ko toog loolu yaakaar naa njariñu askan wi la ndax bu dul loolu président africain yi ñëpp xam ne ne ay président nga fi di toog ay ñaari fukki at wala ay fanweeri at ba mujj ñu mel ni ay buur loolu nag dafa war a jeex président Macky Sall bëggut a nekk buur ci kaw lu mel noonu moo tax mu wan ne moom de di ñaari mandat doy na ko sëkk kon bépp président bu ñëwati na ngay toog boo toogee da xam ne ñaari mandat doo ko war a weesu kon mënoo fee nekk buur di buur di bumi loolu dafay war a jeex te loolu njëriñu askan wi la ndax képp ku fi toog lu toll noonu bu neexut askan wi duutoo fi nekk ba ilaa yu mi diini kon loolu ñëpp ko war a bëgg leneen li ci desit muy lépp loo xam ne kilifa nga koo mën a doon tey boo bëggee posé candidat mën ngaa jaar ci leneen lu dul à parti posé candidat am am am am am nekk candidat ci do jaar ci ben euh, euh, parti politique loolu ba pare ñariñu nit ñu bax ñi lan ah ndax doo xuro doo saagante doo waxante lu nonu kon nit ñi nañ ubi seen bëtt xamné nit ñi wër di wax ay nit lan yo xamné ne kenn du leen déglu parce que seen wax dafa jeex benen bi ci des moy seigne Sidi makhtar am tektal bu mu joxé benen bi ci des porte parole am tektal bu mu joxé benen bi ci des it sëñ Sidi am tek mu seigne blat am tektal bu mu joxé kon ñun ñi nga xamné amuñu lu dul loolu ñoom ngir jëmi sañ tubaa amuñu lu dul sëriñ tubaa fun jublu loolu war naa nekk sunu jublu ñeneen ñiy wax nag kenn fi war a wax muy sëñ Sidi Maxtaar kenn yor kàddoom muy sëñ Seex Bas ñun ay muri len danoo war a sëx ci ndigal ay muri len danoo war a sàkk lu dul ngërëmu sëñ tubaa ndax ñëpp danoo bàyyi seenu askan bàyyi seen i dëkk ñëw dëkk tubaa ngir fa yéene nekk tubaa ànd ak Serigne Touba kon war nañoo gis joxoñu Serigne Touba ñu ànd ak moom ca Ila Touba bii bis bu eggee njariñu waa Touba yëpp la deuxième hôpital Matlaboul Fawzeyni bis bu eggee njariñu Touba yëpp la inondation kenn gisu ko ci Touba gi kenn gisatu ko feneen courant bi doon xoy kamek kenn gisatu ko ah couverture maladie Sénégal ñëpp xam na ne def na ko bourse familiale ñëpp xam na ne gis nañ ko yéen jigéen ñi xam ngeen ne gaz wàññiku na yéen jigéen ñi xam ngeen ne kilo ceeb wàññiku na yéen jigéen ñi xam ngeen leneen wàññiku na kon lan moo fi desati lan moo fi desati laa wax lu wàññikut ñuy wax lépp ay naq sa xaral la ñuy wax lii am bu amee la ñëpp ñoo xam ne nekk nañ ci réew mi dana teen gis seen bopp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh asalaamaaleykum waa mbokki looyeen ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ci sa tur ak sa sant di leen di leeral ne sëñ Modou Mbacke Baara Doli bu ngeen gisee mu ñëw fii ànd ak yéen da leen a bëgg leeral fukki ponk yi ak juróom yi nga xam ne moom la Macky sàll bëgg ñu woote waaw te am ñoo xam ne dañ koy lëndëmal di leen wax loo xam ne bokku ci ngeen déglu ma leeral ci yenn ci point yi ngeen xam ko bi ci njëkk moo di méngale ak jamono doxinu parti politique yi ci wàllu lépp lu dëppook démocratie ñaareel ba may jongantekat yi farul fenn ñu mën a bokk ci bépp woote ñetteel ba yokk dooley gox-goxaat yi jaarale ko ci samp ay kuréel yu koy saytu ci seen biir ñeenteel ba nangul doomi réew mi app nangul doomu réew mi app yu bees aq yu bees te aq yu bees yi moo di aq ci seeni suuf ak ci seen dëkkuwaay bu sell ak ci koom-koom yi nga xam ne mooy meññee ci seeni suuf juróomeel bi dëgëral citoyen yi réew mi mu jaarale ko ci saxal warteef yi yellu ci kenn ku nekk ci ñoom juróom benn delloo waat toogaayu njiitu réew mi ci juróomi at juróom ñaar dëgëral ak ku jégi ak seen njiit juróom ñett may doomi Sénégal yi nekk bitim réew ñu tànn ay ndaw yu leen toogal assemblée ci seen biir juróom-ñeent yokk dooley pencum ndawi réew mi ci ni muy saytoo doxalinu waa nguur gi ak i bànqaasam fukk jébbal conseil constitutionnel bépp yoon wu woo xam ne ndawi réew mi atte nañu ko ngir ñu saytu ko ndax dëppoo na ak sarti réew mi bala ñu bala koo njiitu réew mi di wéyal fukk ak benn jële limub membre conseil constitutionnel ci juróom yóbbu ko ba juróom-ñaar fukk ak ñaar njiitu pencum ndawi réew mi mooy tànn ñaar ci juróom-ñaar yi bokk ci conseil constitutionnel fukk ak ñett yaatal sañ-sañu conseil constitutionnel ba ñuy mën a atte luñ naa dëppoowul ak sarti réew mi ci kanamu cour d'appel fukk ak ñeent doxal ci parti réew mi ne gox yi ak gox-goxaat yi ñooy doxal seeni mbir jaarale ko ci seeni ndaw yi ñu tànnal seeni bopp muy jaraaf yi ak ndawi nguur gi te moo di gouverneur yi ak préfet yi fukk ak juróom li aju ci ni ñuy fale njiitu réew mi ak diir bi ak li nga xam ne moom lañ ci toftofal ñu mën cee bañ a soppi lenn loola mooy li nga xam ne moom la Macky Sall bëgg ñu woote ko muy wii wii bu keroogee na ñëpp ne wii soxna Khady njaay ñi ngi jël nuyoo bépp teg ko ci sa loxo gannaaw bi ñaaneelare serigne Sidi makhtar mu yàgg fi lol ci wér di sakku ci yéen ngeen ñaanal ko mu fi lol ci wér di wax ne ñi ngi lay sant ci liggéey bi nga liggéey di jéggulo ci xawa a yeex a gi ndax fi nga xam fa leen doon jaar ba ex fi xeyna bi mo waral lu mel ñi ngi lay jéggalu ci lolou di nuyu mbooleem ñi nga xam ne depuis ay dix-sept muy cinq ci ngoon ba léegi si ñi ngi toog ñi ngi ñu xaar ñi ngi leen di jéggulu ci lu mel noonu di leen wax ne ah, maanaam liggéey bee demee noonu waaye du suñ yéene ndax buñ sañoon ñëw ci waxtu wi nga xam ne moom lañ leen wax di wax ne ah, soxna Xadi Njaay nuyu leen ndax it mën na noo wax ne fépp foo xam ne ci tubaa loxo jote na fa seen loxa ngi ci fofu kon ba tax na ngi leen di nuyu bu baax baax baax di leen sante ci seen taxaway di wax ne liggéey bi nga xamne dañ ko fassiyene and ak président Macky Sall ñi ngi leen ci wo yeen ñëpp di wax ne li ñu wax ci réforme bi yaakaar naa ne duma ci delluwaat damay wax liggéey yi nga xam ne def na ko ci Sénégal jàpp naa ne li nga xam ne bëgg nañ ko buñ ko amee kenn ku nekk yaakaar nga ne war nga ñaan Ila tuba bi sun borom eggale ko ci jamm ndax bu eggee ci jamm ndaw yi ci liggéey waxuma la ak yoon wi ak mourid yi nga xam ne ñi ngi ci jaar di ñew di magali tuba ak di ñew di saari tuba lolu war nek nekk njariñu murit yi benen bi ci tege waxuma la njariñu mourid yi Sénégal la wara doon ci walu économie kon bobu rek war tax ñu ñaanal président Macky Sall liggéey bobu mu war ko eggale ci jamm mu eggale ko ci jamm it dana tax ne li mu bëgg muy wéy yii nga xamne mom la bëgg ñu ne ko waaw ñëpp ne waaw mu doon njëriñum réew mi ba nga xam ne ëllëg élection yi bu ñëwee 2019 danañ ko mën a ileer ci jàmm ba mu eggale yi liggéeyam boobu. beneen bi ci des soxna yi mën na noo wax ne kenn ku ne ci yéen xam ne depuis mu jëlee réew mi ak léegi ñëpp xam ne ne gaz bi wàññeeku na ku ne mën na koo xam te loolu yaakaar naa ne yéen soxna yi xam ngeen ci dara ki ñëpp xam na ne kilo ceeb it wàññeeku na. yéen soxna si loolu yéen war ngeen ci xam dara ñun ñi koy joxit xam nañ ci dara beneen bi ci desit ñëpp xam nañ ne couverture maladie sanitaire ñëpp xam na ni li nga xam ne mooy faj doomi aadama yi wàññiku na ñëpp xam nañ ne tamit bourse familiale bi ñëpp xam nañ mi ngi am kon ñi nga xam ne egsi wut ci ñoom it ñun fas yéene nan ba nga xam ne loolu dana egsi ci ñoom kon liñ bëgg yéen ci seen jëmmi boppam waxuma la li nga xam ne moom mu ngi koy def ci réew mi waaye bu ko fi yàlla continuer jàppale ko ba man fee nekk lu bare bari dana wàññiku ndax ñëpp xam ne ne gaz feeñ na ci dëkk bi ñëpp xam ne yeneen xéewal mi ngi ñëw ci dëkk bi kon liñ bëgg yéen ñëpp ngeen ne wéy yéen ñëpp ngeen ne wéy yéen ñëpp ngeen ne wéy ba nga xam ne liggéey bii mu ànd ak sëñ Sidi Maxtaar de Ila Touba suñ borom suñ borom eggale ko ci jàmm kër yii muy def ak ay religieux yi muy liggéeyaat di ko tabax ci biir Sénégal mu doon mission yoo xam ne Sénégal yi yëpp la ko defal réew mi yëpp la ko defal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jox señ Modou Mbacke mi mu def ñaan ñu doro bi eh, waxtaan wi señ bi defal ñaan. bismillahir rahmanir rahim na jël la loxo señ Modou Mbacke ñaan. tambale ko bismillahir rahmanir rahim ak la ko alhamdulilah. bala ci señ Mbacke Maal amiin Mbacke. waaw na jël jël naa jërëjëf. Euh, auzu billaahi min seytaani rajiim. bismillaahi rahmaani rahiim. mbooloo mi. maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam santam te di leen siyaara te di kontaan lool ci yéen euh, Sëggéey Jegaan ma di la xamal ne fii li fi dayoon ci mbooloo ëpp na xel yàlla rek atama seere ko sama tab ba ma laay waxee waaw da di jigéen nag xam nga bu ñu ko xam seen borom ko liggéeyee ba yem so su soñ bu wàccee fekkee ci kër ga ñu may ko ndox toppatoo ko jox ko mu reer loolu moo tax mu guddi ñëpp ñi bàyyi fi dafa feesoon dell yàlla rek dama seer lii mën ngeen koo seer itam nga xamee ko noonu su la yàlla delloo nga nuyu lu ma madame la présidente sunu kilifa bu baax a baax santal nu ko te xam ne yéene ji àgg na ndax teewoon rek. mbooloom fekkam fi mbooloom yi teewoon ci kanamam moo gën dul ñëpp yàlla dogal na ko moom it ëssiwut waaye loolu lépp xam na ne noonu yàlla dogale nu sant yàlla bu baax a baax di leen xam ne kii tax a jóg itam muy soxna Omaani Gueye kenn la ci man kenn la ci waa Touba ak Mbàkke ñépp mbokkum ñëpp seq na ko ñoom di dox lu baax di wax lu baax bokkoo ñëpp safoo ñëpp kon su wootee fii ci tey ci Mbàkke yaakaar naa mbooloo mën naa xel loolu it moo fi nekkoon ku fi ñëwoon ci cinq heures bu jëm six di nga xam ne mbooloo wuy nañ ko lay bëgg moo tax ñu dellu bala ba sori it mën nañu kilifa yi fi nekk ñu baal ma sëñ Modou Mbacke Bara Dolly ak ñi màndal ñëpp sëñ mu sëñ Moustapha Ndiaate mu ngi fi euh, bàyyi gisuma loon sax en attendant léegi maa ngi saar si bu baax a baax di nuyu mbooloo Abdou ak mbooloo fi teew ñëpp daal góor ak jigéen su ma duggee ci lim damay bàyyi te bëgguma bàyyi ñu di ko see neen waaye sereel ne nuyu naa sama xol siyaar naa sama xol ci dëgg ci man ay mbooloo mi ne ku leen woo léegi soxla bi ñun benn rekk la muy wuy waaw woteel na ko dimanche la we waaw ku woot xam naa si fii moom daanaka jarul la ko wax karawal nga def ci mbedd mi wax nit ñi ko xamul waaye ku ñu woo nga wuy si fii moom umpuli woone li suñu itte mooy moom nga mooy suñu itte mooy sa itte mooy woote way mooy itte président de la République Macky Sall kon li ma ñaan yéen jigéen ñi ngeen teel a joxe ndekki yi teel a laxasu dem woote ji del si toggaañ yi jox ñu ci urne yi ci école yi ñu añ woote wi balaa six heures ñu am victoire loolu lay ñaan loolu madame la présidente euh, Aminata Tall bëgg moom la président de la bi bëgg moom lañ bëgg ñun yi nga xam ne seestu koy topp ñoom la ñu. ah monsieur Diegane nag boo demee ma desuwaat ci niwe bi nga nuyu madame la présidente xamul ko ni ñun day wax naa ko sax ci biir benn waaye ma ko ci biir mbooloo mi ma dëkk ñun day topp nañ ñun day sant ko baax a baax a baax parce que bi conseil bi njëkku fa dëgg lañ fa nekkoon ñëpp ay jàmbaar lañu jaar nañ fi seen carrière rafet na ndax su ma jumul defe naa ñu créé woon 1963. ba 2006 kon loolu def na biir ay nit jaar nañ fa ñëpp mun naa la leen seen kenn ku de bay nga sa def ak ma sëkk ngir yokk Sénégal waaye moom bi mu fi ñëwee léegi 2012 2013 ak léegi ku xam conseil bi xam nga ne conseil bi yokku na ci bépp fànn su doxin ak aw nekkin ak lépp ñun conseil bi wéet na ba tàyyi jëw ko jëw jëw wax nga si yemandoo ñu noppi muy fu mu teg ni yëg leen jàppale leen. wax naa ko ne képp ko bëgg nga ko àndal bëgg nga mu arrivé man loolu xam naa mu nekk sa xol mu ree ma da baax rek ma ne ko déet dama la seer te yàlla taxam koo àndal ko bëgg mu arrivé kon ñun gërëm nañ ko baax a baax di ko sant di gërëm mboole fi teew ñëpp soxna Manta Gueye nag amuñu sa pay dañ lay bàyyi yàlla ñoo gërëm ñëpp di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatulahi barakatuhu euh, as ba ba jërëjëf jërëjëf dafa guddi xam naa kàddu yi du mën a bëri xanaa kay ndaje mu mel nii soo fi toogee ñu yëkkati kàddu jox la da nuyu yëkkati kàddu nuyoo jiital fi sunu kilifa diine yi sëñ Modou ñu ngi lay ziar di la nuyu di nuyu sëñ Kamal. sama xarit di ko ziar di ziar euh, kilifa yi ngeen àndal yépp ñi ngi nuyu responsable politique yi fi nekk mën naa wax suñu jiitalee l'honorable conseiller Baye moor Ndiaye jàpp naa ni mën na koo teg ci loxo responsable yi fi nekk yépp di nuyu umaane yi mënoon nañoo bañ a jox sax kàddu wante li Baye Mor wax rek laay dëggal jàpp naa ni ci responsable yi nekk ci département bi ku fi mën a téye ay doomi aadama lu mat juróom-benni waxtu man gisuma ko fi man bi ma xoolee sama montre rek léegi juróomi waxtu yu tegal am nañ ko fi mbolo miñ fi fek mu dajale len xamna yene mo monsieur le représentant de la présidente yene mo nekkoon sargal xaritam la présidente amintertal, Tertal. te muy jigen yo xamné région bi yépp walla Sénégal gi yépp ño xam ak njambarem ñoo xam taxawaayam ci gannaaw la président Macky Sall su ñëwoon fii ay 16 heures jàpp 17 heures dana xam kan mooy umaane ndax dafay responsable bu nga xam ne jafe na si Touba Mbacké responsable jigéen yi fi ne ñenn ñi Touba lañ féete ñenn ñi Mbacké lañ féete mais moom dafa am tànk Touba am tànk Mbàkke loolu bëriwu fi yàlla def également famille bi mu bokk di famille boo nga xam ni seen way fii ba àddina di tukki du jeex moom tamit mu ñëw bay wàllam si waar wi tey bi muy xawee jaaxle man bokk naa si ñi njëkk a jóg Neko ko su aminte doon ñew 4 h du matin man duma bouger maître su don tamba nga ko dañ la fa fekk kon sëñ mangat sëñ euh, sëñ njeegaan ñun de li ñi wax suñu xol lañ ko tipé nang ñu dimbali ngir yalla waxal ñu la présidente aminta ne ko xaritam bi bi dajale na mbooloo Mbàkke ak Touba 16 heures la convoqué nit ñi il est 22 heures passé ba nga ñëwee fi nga fekk doomu aadama yépp ñu toog di ko xaar yóbbante boobu moom bëggoon naa nga àggale ko ko comme guddi na nag ah damay yem foofu jottalim nuyoo bu nga xam ne Baye Mor déy na ma ko léegi jëmale ko ci soxnaam. neena mu bul tek micro bi yeb te nuyoo mo sama soxna xamna da ko faté loolu ak groupe mbaboor nga xamni ñom sabay xarit lañ ñom animation Touba Mbacké ñoko ko ñoñu aussi ñu ngi leen di nuyu di leen saral di nuy sama maître le maire yousou Babou mom tamit yag na fi liggey bi mu def ci wolofal di la jappalé yow mi loolu japp na ni contre ak sëñ sëñ Mamadou Lamine Sall yaa ngi Mi, li ngeen def ci wolofal contribuer na lu bari ci li nga xamni nit ñi jëne ko comme décision pour voter oui le 20 mars oui oui oui. merci beaucoup ma ngi leen di gërëm yeen ñëpp di leen sant. légui nag comme madame la présidente mo waroon a ñëw ma discours il son représentant Madame la présidente du Conseil économique, social et environnemental, je voudrais au nom de tous mes compatriotes ici présents vous exprimer toute notre dénégation et de dignité qui font de vous une femme respectable et respectée par tous votre, compagnonnage avec le président Macky Sall est marqué par le saut d'une fidélité inaltérable. Depuis que, vous, présidez au destinées du Conseil économique, social et environnemental, vous avez donné à cette Chambre une visibilité que fait de l'une des institutions les plus prestigieuses d'Afrique, voire du monde. Votre intelligence vous a permis de faire du Conseil économique, social et environnemental une vitrine nationale qui exerce un attrait sur les autres pays qui ne se laissent jamais devenir s'inspirer de l'expérience sénégalaise. Sous votre magistère, le Conseil économique, social et environnemental est devenu une véritable force d'impulsion, de réflexion de propositions et d'initiatives. Grâce, à votre esprit d'initiative et à votre sens élevé de l'intérêt national, vous avez fait du Conseil économique, social et environnemental un véritable creuset d'un dialogue fécond qui contribue qualitativement à l'élaboration et à l'évaluation des politiques républiques dans les domaines relatifs kon jërëjëf amna naa netli en tout cas en plus de la mobilisation di sant Seigne Kamal mi participer sur le plan matériel pour que Aminta bu ñëwoon mën a kontaan ba légui, contentement boobu incha allah dina àgg ci parce que na ko netli ni ma ko gissé. kon jërëjëf Seigne Kamal Seigne Oumane may wax nan, ay chaise

ñu ci jéglu bu baax baax te yaakaar nañ ne da ngeen ñu jégal parce que taalibe sëñ Touba ngeen te xam ngeen li war ci diggante taalibe bu suku ko jéblu ci kanamu sëriñam suku ko jéblu kanamu naataangoom suku ko kanamu doomu aadama metti na xam nañ ko moo tax bi ma passé ngaabu soxna si taxaw ne ma maa ngi def musiba ana jegaan foog maa ngi si gannaaw ñu woo ma ma ñëw mu ne ma da ngay dellu Touba àgg ci umaane boo fekkee mu tas xayrul nga këram expliquer ma ko su ne mu nga fa nga santal ma ko te jéglul ma ko waal sëñ Abo Mbàkke ngeen ànd dem agal ma ci béréb noonu